ay di njàmbat euh, moom njàmbat li moom ñëpp xam nañ ko ah <laughs> mooy euh, Walfadjri ak signal bi une semaine euh, ñu dagg ko loolu muy dogal bu jugee ci Sénéra mu doon loo xam ne nag jugulee ci Walfadjri peut-être semaine bi moo jaaxal nit ñin parce que dafa bari balaa ñuy dikk ci aspect technique yi ak nan la coupure bi ak dagg bi mu ne possible tout d'abord Modou Diouf ancien directeur technique Walfadjri ban jàngat ngay def ci lu xew nii ci Walfadjri waaw euh, di ko ñaawlu Omar di ko ñaawlu. Mm-hmm. ndaxte yaakaar naa fi ñu toll nii ci jamono ñu ngay dégg ñu naan ni nañu signalu benn tele loolu dafa nekk loo xam ne waratul am. Mm-hmm. Euh, Walfadjri la nekkul coupure bu njëkk yàgg nañ ñoo coupé mais coupure yi daawul demee nii maanaam euh, coupure bi ñu fi am bi gën a gudd conflit la woon ak Excaf. Mm-hmm. mooy ci jamonoy prison break. Mm -hmm. maanaam mu amoon na euh, décision judiciaire boo xam ne dañ ko joxe woon pour Sidi waroon fay euh, Excaf xaalis. Mhm. Euh, après di xaw a yéexal paiement bi. Mhm. ñu andi woon huissier pour mu saisir matériel bi. Mhm. boo xoolee boobu bokk na ci coupure yi nga xam ne moom moo gën a gudd ci coupure Walfadjri. am na yeneen yoo xam ne ay menaces la ndax boobu noonu comme li nga wax xëy na bu ñu jógee ci aspect technique bi dina gën a leer boobu coupé Walfadjri yombul woon. ce n'est pas facile comme léegi nii. mais bon et bi ñu defee politique ba TNT ñëw ci la coupure yi commencé nga koy dégg tey seen TV suba Walf xëy na ël suba demee keneen. Mhm. mais daal di ko ñaawlu ndax euh, fi jamono toll nii maanaam tëj tele nekkatu actualité. ndax mhm. tëj tele c'est juste que de nom ndax télé léegi kenn mëntu ko tëj. ak mhm. réseaux sociaux yi ni mu mel explosion média yi truc tëj télé mënatul nekk kon nag dafay nekk wax boo xam ne dafay ñëw di gàkkal ñu ko def. maanaam tëj ràpp dafa mënatul nekk daal. moo tax décision bu ñuy ñaawlu la loo xam ne je pense que ne bu ñu jógee ci biir war na fi yem et dina jël peut-être mesure yi nga xam ne moom moo ci war. pour loolu dañ carrément. mais El Hadj yow ku mi noon El Hadj Seydou Lamine Niass nga euh, tey day am li ñuy wax ci wàllu gestion mooy gestion de crise maanaam bu bet dara ñëwee dal ci sa kaw. ban taxawaay nga doon am yow bari nga ci ñoo xam ne en tant que technicien ñu mu doon waxtaanal bu yu mel ni amee Euh, Sidi nan la ko doon dundee crise yu mel ni amee nan la ko doon gérer. bon je pense honnêtement bu nekkoon mu ngi fii duñ ko tëj duñ ko tëj parce que si Lamine daf fi nekk mais duñ ko tëj parce que dina développer stratégie boo xam ne kenn du ko tëj ndax bu béti xam na ak saa xam nañ li may wax xëñ na sax ak yow euh, yàgg nañ fi jot menace su tëj am na benn dimanche boo xam ne Abdou Karim Sall nekkoon directeur ARTP. 2016 waaw dafa ñëw pour tëj. Mhm. buñ ko mayoon tuuti temps mu tëj. mais Sidi doon na fexe wax balaa ñoo tëj maanaam wax nag nu mu ko mën a waxee boobu je me rappelle euh, téléphone lañ ko jël mu jógee këram di ñëw di wax téléphone ba agsi dugg antenne tëj ba noonu la jaaree fomm nit ñi daw ñëw Abdou Karim tiit ci sécurité mu dem finalement bi ñu ko laajee dafa ne sommation la doon andi. waaw maanaam directeur buy gàddu sommation di ko yóbbul organe de presse ci dimanche. Mhm. xam loolu jafe woon na. Ah. mu ne sommation la parce que. maanaam dafa ko bëggoon tëj délibéré dafa te naru teg yoon daal tëj bi. yaa ngi dégg muy benn. am na fi euh, beneen boo xam ne noonu la demee tamit bi ñu waxee dañuy tëj ñëw ba dagg dañoo ñëw ba dagg sax boobu mooy benn base bi ma lay expliqué dañoo ñëw ba dagg comme ñun dañoo amoon ñaari émetteur benn mm-hmm. immeuble Kébé benn fii. Mm-hmm. ñoom bi ñu ñëwee mënuñ accéder immeuble Kébé. Mm-hmm. dañuy ñëw fii ñu jël li nga xam ne mooy yóbbu suñu signal immeuble Kébé muy feso loolu la ñu jël yóbbu ko. bi ma ñëwee mu ne ma fexeel ma wax. fexeel rek ma wax. ma ne ko ah, baax na mun nga wax ma taal émetteur bi nekk fii boobu demoon nañ bagage yu bari ci régie bi yaakaar naa peut-être defal ko benn enregistrement diffusé ko gis nga bi ñu ko diffusé commissaire bi bi mu ñëwaatee dafa ne booy sotal nga ma boo taalaatee affaire bi naa la yow mi laay jàpp. <laughs> parce que boobu noonu. jàpp nañ ne ñoom tëj nañ ba dem. def nañ seen forfaiture kenn xamul lu ñu def. Mm-hmm. Sidi avait besoin de parler. Mm-hmm. boo waxee xëñ na après nit ñi dinañ ne ah kon lii moo mm-hmm. benn déclaration 30 minutes ma fexe ba diffusé ko ci antenne bi. nit ñi nit ñi ne bi ñu ko gisee après les gens commencé après ci lañ ci lañ ndeke ñi ko defoon affaire banditisme lañ defoon jël émetteurs yi yóbbu ko yoonu mbuur kenn yëgul def vraiment yëfu bandi dëgg dëgg dëgg dëgg mais wax boobu mu wax moo ko déjoué kon mm-hmm. jàpp naa ne tey bu fi nekkoon bu Babacar wootee mm-hmm. wax ne day tëj dina teg stratégie boo xam ne kenn du tëj te man loolu laa gëm mm-hmm. te jàpp naa ne tamit bon lii am am na ba pare mais jàpp naa ne war fa waroon teg stratégie boo xam ne kenn du tëj ndax après bu ñu la wax malgré léegi réseaux sociaux yi yaa ngi wax mais doyul. Mm-hmm. mais rajo mi ngi dox euh, mag waaw mag mag ak euh, pa bi nekk këram yor post rajo di déglu wala keneen ak keneen wala ko xam ne dafay post télé di seetaan kooku mënu accès ci di réseaux sociaux yi kooku boo ko tëjee. Mm-hmm. du jég du dégg sa message. Mm-hmm. moo tax man am naa ci sama gis-gisu bopp. jàpp naa ne Walf waroon na développer stratégie boo xam ne kenn du tëj te message am dina jàll. Euh, ça macha allah <clears throat> Modou kii bi am na solo développement yi li nga xamante ni bii moom nga expliqué ak yi nga xam ni fàttali nga ko ci euh, li nga xamante ni bii xewoon naag yooyu mu nekk loo xamante ni bii lu am solo mais man fi may ñëwee Modou yow mi TNT TNT bi ñu koy def yaa yaa naan dem ca réunion ya TNT ak. fi fa jaar nga xamante ni bii jaar ngeen jaaroon ngeen ci ay pexe maanaam bañ tëj leen fii ngeen pexe ba di émettre fii ci beneen kii bi comprendre nga xam ne yooyu yëpp jaaroon ngeen ci lan moo convaincre woon tamit si di ci jamono jooju ba après mu daal di dugg ci TNT bi te ngeen xam ni TNT bi bu ngeen ci duggee lu mel nii mën naa ne bi ngeen wala xamul leen woon ni lu mel nii mën na am waa ji toog fële bés bu noom ne leen kamaj wala dafa amoon leneen yu ñu waxaatoon waaw bokkoon na ci ay craintam waaw mais amuñu amuñu woon Walfadjri amul woon choix pour bañ a dugg ci TNT mm. ndax TNT ma fàttali ne dafa am lu ñu naan UIT maanaam Union internationale des télécommunications mm. maanaam vers les années quatre-vingt-dix ñoom ñoo gis ne technologie fi mu jëm ah. buñ continuer nii maanaam euh, dinañ atteindre benn nombre de rajo wala télé boo xam ne dootuñ ci mën a dolli dara ndax spectre bi day fees mm-hmm. ñu ne kon nañ développer stratégie pour di dajale télé yi mm. maanaam nga xam ne benn fréquence bool fa doon yor di ko diffuser benn fréquence boobu mën nañu ci dugal léegi fukki télé yoo xam ne dañuy loolu moo andi woon projet bi mu nekk projet boo xam ne projet international la léegi nag Afrique waroon dugg ci phase am may fàttali ne Sénégal waroon na basculer juin 2015 le Sénégal waroon na basculer carrément. waaw loolu waxoon nañ ko mais ba léegi dafa daa amut. amul mooy échec bi ñu am ci TNT bi. Mhm. loolu moo taxoon Sidi Moussa ñu mënul woon bañ xëy na après des naa ci dellusi biñ ci duggee nag lii bokkoon na ci ay craintam ndax boo xoolee dafa am ñaar yoo xam ne doon n ko craindre moom. mooy bu ñu duggee ci TNT maanaam dafa doon jàpp ne ñun médias dañuy yeew suñu bopp. Mm-hmm. jébal état. waaw jox ko suñu loos ku ko neex mu dagg. Mm-hmm. moom noonu la ko doon définir. te loolu moo te loolu moo ci am fi mu toll nii. beneen bi mooy bi ñu defee convention bi wax euh, convention de la presse bi. bi xam ne ba léegi adopté guñu ko. mu amoon ay clause yu ci nekk yoo xam ne daf ko doon xeex moom tamit parce que da doon wax naan parce que ci convention bu mujj bi dañuy wax ne man Modou su ma nekkee Walfadjri mm-hmm. bind benn article boo xam ne dama ci. xas biti mm-hmm. biti su ma porté pour diffamation mm-hmm. maanaam man kenn du ma def dara organe bi la ñuy tëj mm-hmm. mu nekkoon ci clause yoo xam ne tamit daf ko xeex waaw cest à mu nekk ndigg sarax yoo xam ne état daf koy teg souvent pour objectif bi new woon loolu mais daf koy teg pour di am même mise ci média bi may ñëw nag ci TNT bi gis nga TNT bi sax état rek moo ci bénéficié wu kenn bénéficié wu ci Excaf bi gañoon marché bi mu ngi à l'agonie yaa ngi dégg li ñu waxoon yëpp dañ koy def ci TNT avantage. defuñ ci benn amul ci dañu waxante dëgg rek. TNT mm-hmm. dafa waroon di internet ci biir kër yi. waaw TNT dafa waroon di andi li ñuy wax catch-up TV maanaam. takku show commencé. waaw début bi. soo ñëwee da ngay commencé yow fi nga fi nga bëgg a mm-hmm. nga seetaan. li xew ci réseau waaw TNT dafa waroon am VOD. Mm-hmm. maanaam émission bi wàcc nga sa kër 20h takku show jeex na. nga seet émission bi bu la neex nga seetaan ko. waaw loolu yëpp amu ci. waaw ah, lépp waxoon nañ ko. waaw ndax modèle bi ñu doon jaay pour Sénégal modèle bi moo baaxul. biñ doon jaay biñ doon jaay Sénégal ne Sénégal dafa modèle TNT boo xam ne. waaw adduna bi war nañ ci war nañ ci référé wu. waaw modèle bi baaxul. ah waaw modèle bi baaxul. lu tax nga ne baaxul. Euh, TNT adduna bi ni ñu ko defee. Hmm. état mooy jël financé. Ah. adduna bi yëpp noonu lañ def. état mooy jël financé. Hmm. Hmm. ndax état bu financé après dina amortir dina jël financement am. ndax dafa am lu ñu tuddee dividende numérique. ndax tey boo nee télé yi bàyyi leen. fréquence yi ngeen yore ngeen ñëw ma bool leen ci yenn fréquence mhm. fréquence yooyu ñu libéré état daf koy jaay loolu la ñuy wax dividende numérique boo xoolee état dividende numérique bu Sénégal jaayu ko daf ko loué daf ko loué parce que bu ko jaayee day perte c'est-à-dire ne c'est des centaines c'est des centaines de milliards mhm. léegi nag loolu da nga koy loué opérateur de télécommunication yi lu mel ni ay Sonatel mhm. ay Free yooyu noonu ñu mun ci développer 4G 5G ndax ñoom tamit dañuy soxla espace bu ñu a émettre waaw loolu moo nekkoon but état Sénégal kese moo ci gagné moo un bi matul ba léegi. sept ans après. wala huit ans après. couverture bi matagul. ndax tey on parle peut-être de soixante pour cent de couverture góoma sax soixante pour cent de couverture la. Euh, li am avantage yi waroon am. amu ci. amu ci moom société sénégalaise bi ñu doon vanté wu ne moom moo ko gagné moo koy def. Mhm. mi ngi nii tey. ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy perfuser. Mhm. kon finalement kan moo ci gagné état moom moo ci gagné. di coupé. waaw maanaam mhm. teg ay organes am. bu TDS moom mooy diffusion bi. waaw andi CNRA pour muy contrôler léegi nag erreur bi fi mu nekk ci média yi mooy dañoo waroon xeex ci cahier de charge yi dañoo waroon xeex ci cahier de charge yi ndax Babacar wàccul yoon bu rekk dañu waxante dëgg donc wàccul wàccul yoon Babacar Diagne ah. charge yi ñoo ko may mu coupé cahier de charge ma foogoon ne ARTP moom luñ ko mayee mu coupé dañoo changé affaire bi xam nga bi ñu def bi ñu def TNT waaw dañoo amoon content content moo fi njëkk a nekk mm-hmm. ñu ñu ñu basé woon ko ci primature mm-hmm. état dafa créé TDS dafa créé benn société TDS boot ko ci CNRA yokk ay prérogatives yi. CNRA mooy bi El Hadj jiite woon wala. PCA. Ah, PCA PCA El Hadj foofu est-ce que amul la mën a nekk patron de presse ba pare li presse bokk yëpp ñu koy dénk. waaw xam nga nomination moom nomination rek la. c'est-à-dire ah, que conflit d'intérêt bi ngi commencé ci bu njëkk bi. Hmm. bi ñu waxee ne TNT euh, bi dañ koy jox RTS boo xoolee dañuy wax dañ koy jox RTS moo ko waroon gérer ñëpp yuux ne RTS waru koo gérer parce que bu ñu ko joxee RTS. Euh, ah. day andi conflit d'intérêt mhm. maanaam ay wuj mënoo nekk télé say wujj di la téye mhm. mais El PCA rek la day maanaam El moo nekk link TDS ak état bi mais TDS am na direction am na yëpp yoo xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo koy def léegi nag état moo dooleel sénéra mhm. état moo dooleel sénéra ba nga xam ne jox ko yenn prérogatives yi maanaam sénéra yi dafa am mission de contrôle ak mission de police loolu moo am léegi xam nga général bu njëkkoon contenu la doon xool li taxul njëkk njëkk jug Sénégal moo nekkoon réguler parti politique yi c'est-à-dire que prise d'antenne yi ci télé yi. Mm-hmm. et puis télévision publique nag. Mm-hmm. télévision publique muy RTS ak euh, yooyu ñu ne mel. APS Soleil waaw maanaam euh, Sénégal dafa waroon di veiller. ba kujjee politique yëpp di fa am temps boo xoolee ci ay charte Sénégal ñu ngi ciy wax ne maanaam dafa war émission boo xam ne chaque semaine ci télévision national boo xam ne dinañ def débat contradictoire ak différents partis politiques. doon wax ci prise d'antenne ci période campagne. période de campagne électorale nga xam ne présidente d'antenne yëpp Sénégal moo ko doon organisé. mais loolu yëpp amul wax. waaw moo lay moo lay woon ci. Euh, situation bi ñu nekk kon Sénégal kon Babacar Diagne liggéey. waaw Sénégal créé nañ émission mais loolu am mooy dafa fayir ci ay mission ci lu bari. Hmm. mais nag télévision yi ñoo war a xeex. ndax Sénégal Babacar Diagne. Hmm. moom moom kese Babacar Diagne amul possibilité tëj télé. Hmm. mais ci texte yi mu tënku. en tant que euh, président CNRA ak texte yu mu tënk may na ko mu woote TDS na leen dagg leen signal sangam yi dagg signal sangam. léegi nag problème bi. waaw problème bi mooy euh, dañoo war a attaquer texte yooyu. dañoo war a attaquer texte yooyu noonu. Mm. parce que dégg naa ci communiqué mu ne coupé une semaine prochaine fois mun na nekk retirer licence bi. Mm-hmm. loolu buñ fa àggee c'est scandaleux. Mm-hmm. télévision bu existé depuis. yow avant ngay nekk directeur yow sur si benn côté nga war ko mën a toog sa biiro tëj ko ndax nga licence bi. surtout mu retraité moom mais loolu noonu c'est-à-dire que. ab retraité la 71 ans la. mais mais Maodo man man ci sa biir wax laay tibbaate yaa ngi wax ni Walfadjri waroon na mën a teg benn stratégie. wax nga ko aussi ci sa biir wax euh, ñu ngi ci TNT bi mais dégg naa aussi RCN bi xaw ma mi ngi daw xaw ma loolu laa dégg sa matin mais yow pour yow mhm. ban stratégie la Walf waloon teg parce que la woon woon na yow jamono ja nga fay nekk directeur la ñëw la ngeen mënoon mënatu leen ko léegi possibilité yooyu amatu leen ko ban stratégie la waroon teg stratégie mooy cest à maa ngi maa ngi rafetlu ah xeebuma xalaatu ñi ko ñi ko téye mais bu nekkoon man la dinaa defee neneen xam na laay defee waaw déedéet du loolu du saay-saay sax xam nga xala xalaat rek la quoi man pour man pour man pour man tëj tëj mooy mujj man damay réfléchir en tant que technicien du ma réfléchir en tant que journaliste bu gëm éthique gëm mm-hmm. dem ci ak foofu man du damaa jàpp sa gémmiñ bu ñu ko tëjee dootoo wax sa soxla man loolu laa jàpp mm. bu nekkoon man maa man dama dama bokk ci ñu koy diriger bu ma Babacar woowee ne ma damaa bëgg a tëj dama ko may nu mu tëjee du ma dem ba jusqu'au bout dinaa dagg dinaa dagg siñaal bi dinaa dagg li may retransmettre en direct organiser débat dénoncer forfaiture bi ma Babacar Diagne def loo réclamer sama liberté d'expression tout temps mettant les images comme PC di dugal di génne dugal di génne c'est que loolu loolu la cest à stratégie rek ngay teg tu gères l'antenne pendant deux heures trois heures de temps affaire bi sa passe. li nga wax nii rek Penda Diallo Gueye na ko. mais li li ci am mooy. Mm-hmm. manifestation tubaab bi télé yëpp def nañ ci élément journal. parce que tëj nañ leen. tëj nañ leen mm-hmm. cest à wax na la loi bi moo ko ko may maanaam fexe nañu ba ñoom ñu am pouvoir ci télé yi maanaam ñëw mën a tëj te doo mën dara maanaam da ngay développer beneen stratégie. bu la nee arrêté kon jëlal say responsabilité tontu bi. déedéet du ne ko man. mais mais est ce que est ce mu mhm. mi ngi nii tey ñëpp di ko ñëw di ko masawu. c' est vrai c' est jëlee say responsabilité bi dafa dugg ci nga waroon def avertissement def mise en demeure comme avant mais xëy rek euh, euh, dagg. daawul demee noonu. parce que man à ah, oxygène mos na nu dal euh, en 2009 mais dañ ñu jox mise en demeure. léegi bi ñu joxe indi les mise en demeure def avertissement ñu dëgër bopp. ñu doog ñu ñu doog a coupé. c'est que loolu la damay régional li Adja Betty wax c'est-à-dire que texte yi dafa changé. boo xoolee fii defoon nañu fi benn documentaire bu tuddoon business du sexe. ah mhm. Pierre da Silva boobu la génne suñu xaalis xaalis ba yëpp Pierre da Silva la sii di yëpp Pierre a ko génne. Pierre business di sexe. bu dëgg ba am solo bu ñu tëree business di sexe. Ah. c'est-à-dire lu ñuy reproché. te ngeen demoon reproché wuñ ñu. te ngeen demoon jasab. waa jasab. Ah. mu jëloon coow lu bari eh. reproché ñu. Eh. lu tax ñu def documentaire dañuy reproché heure bi ñuy dawal documentaire bi. bi ñu defee bande annonce bi ñoom ñu dénoncé heure bi. def mise en demeure ne Sidi boo ko tegee heure boobu dina am ay sanctions foofu mën nga def mise en demeure. parce que événement bi amagul. Hmm. Sidi bañ na day dawal heure boobu ñu dawal ko prime time vingt et une heures chaque bi ñëw 5 millions ça. ah voilà loolu day am mais bii dafa nekkoon maanaam instantané la woon instantané la c'est-à-dire que c'était sur le champ c'est-à-dire day wax arrêté leen léegi nag lenn mënoon na ko def bu demoon coupé te avertirul. Hmm. ñu ne ah dafa def abus. mais l'avertissement verbal rek la mënoon doon. verbal comment verbal parce que c'était instantané il suffisait d'arrêter mënuñu woon def communiquer courrier. mu ñu koy indi ñu koy wanaan fekk nañ fi diw fekk nañ fi diw gis na ko gisu ko dalay woo direct xam nga cest à mais moment boobu am na ay télé yi diffusé la même. nañu attaqué la même émission lu pour. nañu attaqué texte yi leeral mu ngi doon eh, eh, leeral mu ngi doon diffusé. xam nga tey jii du ma tëkkale leeral je n'ai rien contre ah, wax dëgg fa yàlla. Ah. mais teg leeral teg wala fajari. mais télé télé la rek. non non porte bi bokkul. porte mais Bakar li lay topp man lañ noonu man lañuy toppee question Modou Modou wala Bakaaru liir la. <laughs> mais mais mais Omar li xale bi def Omar bu fekkoon loolu rek la ñuy xool mais mais Modou mais Modou bi ñuy wax affaire yu yoon dañuy wax la loi elle est générale et impersonnelle loi xamewul ah, Omar bu ñu nekkoon ci foo xam ne dañuy appliquer la la généralité de la loi et mm-hmm. l'impersonnalité de la loi mm. c'est-à-dire que kon duñu fa tëj télé mm-hmm. dañu nekk ci pays africain am ay réalité quoi qu'on puisse dire porter message Walfadjri yi mënul yem porter message ak leeral kon kay ñu ngi ci dictature médiatique xam nga xam nañ ne état moom chaque fois si lépp lu muy liggéey comme bi TNT bi ñëwee foog mu fexe ba. Euh, loo xamante ni moo ko arrangé parce que état moom foog mu parce que dafa ragal média parce que xam nañ ne média mooy mm. mu ragal léegi nag gis ngeen ne Sidi moom gisoon na vision boobu amoon na vision boobu pour xeex yenn yi léegi li tax euh, yeneen euh, kii de presse yi ñoom toppuñu ñu voie boobu am ba tey ñoom mënuñu si dara fi mu toll nii waaw xam nga presse bi moom kaay ma xamal ne dama leen di jox benn conseil malgré ci laa bokk mm. gis nga bu ñu dañu naan tey kii suba kee gannaaw suba kële nañu wax li fi nekk. presse bi ni muy doxee fi mu toll dafa doy waar. yàgg nañ ci ñi ci ñi ci nekk nii gënuñ ma cee yee gënuñ ma cee yaakaar naa def naa si euh, vingt nangami année. kon gënuñ ma cee yey gënuñ ma cee xam. dama am droit légitimité pour wax ci tamit. gis bu ñu ko joyantiwul état bu fi mën a nekk bëgg a def lu la neex di nga ko def presse bi ñoom ñoo war a boole seen bopp di xàccandoo di dóorandoo mais tey jii nii da ngay gis une certaine presse boo xam ne yàqamte ne ñu tëj télé ba ñu jubilé am na ñoo xam ne dañuy dem sax def plateau maanaam di wax loo xam ne da xam ne tel télé la ñuy waxal te kenn du ci wax te loolu amul woon fii fàttaliku nañ fi ñu tëj Sud FM ndax benn interview bu ñu defoon ak benn rebelle ñu tëj ko ci lu leen neex Ablaye Wade tëj ko te loolu noonu bi ñëwee ba ci biir après xam nañ ne nekkul woon sax loolu moo taxoon mu def ko dafa leen ko doon mais bi ñu ko defee mais ca ngoon nga dañ ko andi ndax lan xeex bu tar. bu leen presse bi tegal. générique yeeg yëpp ñëwoon man jàpp naa ne bi fii si bi fi nekkoon si Lamine mu ngi fi bi ñuy tëj seen TV. ci lay wax ne lii ci bu ñu paree ci man lañ jëm si ndax loolu la doon wax bu ñu attaqué woon kenn bu gars yi naan non président lii mooy déedéet ñii kii ñu attaqué ne bu ñu bàyyee mu jàll suñ paree ci man lañ jëm si. loolu nag tey moom moo dal presse bi moo tax nañu fexe ñu. def ay cadre de concertation mu mu nekk nag ay cadre yu sain parce que état infiltré na presse bi infiltration boo xam ne cadre bu ñu mën a teg bu ñu ko assainirul lu ñu fa décidé wu lu ñu war a àndandoo dina am ñoo xam ne duñ ci dem te dafa am fi toll nii ndax boo xoolee tey jii nii euh, euh, kii ñu yoree jumtukaay maanaam association yu yore ci presse bi xam gaa yi communiqué rek la ñuy def di ñaaw mm-hmm. tëj télévision une semaine ci réew ci vingt vingt et unième nga toog nit ñi def seen mais ko bi ma xëyee xool presse bi gis kenn waxu ci. mais laa ne laa ne presse bi mu ngi signé arrêt de mooram. Mm-hmm. bëggante wu noonu mu ngi signé arrêt de mooram. ñu ngi dem tey ci dictature médiatique lañ. tey jii nii. Mm-hmm. bu ñu xëyee tey tëj Futurs Médias Walfadjri duñ ci wax cent franc ndax dañ naan bañ ñu tëjee waxuñu ci. Mm-hmm. dafa reportage rek lañ je me rappelle fii. du temps de Wade doon nañ xëy presse bi yëpp def une noire bind la monstre est toujours vivant. ma bi wadd sonalee kum ci laal hmm. wadd kum ci laal bi ba Senghor demee def vandalisme las waaw ba ñu xëyee parce que dañoo def titre noir le monstre est toujours vivant mhm. ils ont toujours combattu le monstre le monstre ne veut pas dire que Macky Sall wala même état bi nga xam ne dafay utiliser yenn jumtukaay yi pour museler presse bi kooku la ñuy wooye le monstre moo tax presse bi je leur donne un conseil nañu góorgóorlu ñu booloo gis nga bu ñu ko deful. wallaahi dinañ dem ci loo xam ne. mooy loolu. mais moo ah Modou daa Modou jour bi ñu arrêté rek ma arrêté jour bi ñu kiiwee. wala fa d'abord dolli sax cinq minutes bonus. pour sama mën ak yow. <laughs> ñëwal ama ama. jour bu ñu liyee Walfadjri <laughs> ah dama gis. Walf am ñu koy diffuser quoi surtout les réseaux câblés. loolu nan la possible ci wala foofu. wala wala xam nga ñu xam nga réseau câble moom c'est large Walf mu ngi satellite. mu ngi satellite léegi nag mu des benn affaire boo xam ne damay interpeller Cheikh Niass loo xam ne comprendre ma ko man Walf dafa am contrat ak Canal Horizon. waaw Canal waaw. Canal jëlul signal bi ci TNT man xam naa Canal fi muy jëlee signal bi. Mhm. Babacar Diagne ban prérogative la am. ba couper Canal bi. man loolu bëggoon naa Cheikh mu interpeller ci waa Canal Horizon. gis nga partenariat dafay seen c'est-à-dire que Cheikh warul nangu yenn yi sax ñu koy teg ndax bukki bu yebee waxambaane ca doxin wala kanaal mm-hmm. contrat bi war fa am moom maanaam war nañ xam pourquoi Babacar Diagne di ko coupé Babacar Diagne mën na coupé TNT ndax moo géré TNT mm-hmm. mais géré wu canal mm-hmm. pourquoi ñu koy coupé ci kanaal bi waaw loolu question la pourquoi ñuy muy nangu ñuy couper. Ah, signal mais nee na dina internationaliser le combat parce que sur le plan juridique pour que. waaw eh, mais xam nga tey hmm. Hmm, hmm, internet c'est bien c'est bien ñu xeex man jàpp naa sax sitting bi war a am vendredi. ñu ko defee baaxul. ndax bu ñu defee fekk bi ñëw. xam nga signal bu li ngay xeex li ngay xeex loo xam ne rétablir nañ ko xam ne dañuy xeex peut-être pour prochainement pour man sitting bi maanaam biñ ko tëjee. ci ca samedi ba. Ah. ci lañ def plan d' boo xam ne dañ koy. wóyal ba affaire bi ñëw mettre la pression ba affaire bi ñëw. Eh. mais bu ñu bàyyi ba vendredi signal bi ñëwaat. bon nañ def sitting c' bien. mais après signal bi ñëw na te demain je vous dis ah. bu Babacar Diagne non mais la combat continue. waaw mais combat bi nekkul combat personnel. Ah. c'est combat c'est ah, combat collectif. non il d' accord mais parce que da ngay béréngu di xeex. d'accord mais le combat doit être collectif. lay dóor yet ba nga dee nag. oui ma le combat xeex diju ba xeex diju baaxu ci de. le combat doit être collectif. loolu moom combat général la war a doon. Walfadjri bu récupérer signalam na xool ni muy defee gis nga fi mu toll nii je vous dis un ci meññ pon web bopp sa bopp la. ndax mbooloo amatu ku nekk nay demal boppam. ndax in bu weer bi dee Cheikh Niass mooy fay. te tey une semaine de de de coupure balaa ma lay dagg. c'est vrai fi laa jeexale une semaine de coupure c'est vrai. Hmm. di nga nit ñi dañu la ko ndeseraan mais nooy def ak say partenaire commercial comme partenaire commerciaux nooy def ak ñoom publicité yi waroon daw noo koy def. Mm-hmm. ñooñu doon ñooñu noo leen def moo tax réew mi dafa toll foo xam ne dafa tëradi ku nekk na nga wut say. ni ngay yaa xam ni ngay wiccaxee sa bopp jinax waaye boo fi jaayee euro te jël ba gars yi na la tëj ñeneen ñi dañuy reetaan suuka boobu waaw maa leen di gërëm maa ngi leen di gërëm maa di gërëm di gërëm Omar ci waxtaan bi ah. yow yaa fekk ku dul wax nga di ko waxlu eh, merci di gërëm saa ci initiative bi Solution TV ñun ñu ngi ci biir ah. waaw moom suñu suñu suñu partenaire la di gërëm Pape mi nga xam ne mi ngi def euh, tout ce qui est sport et di gërëm béti sama xarit bu baax bi di nuyu sa yaay ak tonton di nuyu waa kër yëpp boo demee nga nuyu ma leen maa leen di yóbbu di nuyu di kontaan daal ci invitation waaw mbubb si wax nañu ma ne moom démb téléphone <laughs> da ngay ruube. <laughs> ayca jaajëf kon euh, El Hadj Modou Diouf nekkoon ancien directeur technique bu Walfadjri doon technicien rajo télé ah, ak euh, lépp loo xam ne day laal digital ah. comme affaire yi gën naa màgg ñu koy jaajëfal bu baax di rafet nag liggéey bi mu nekk ak ñun fii di ko gërëm bu baax di la ñaanal xam-xam bi gën a yokk wér gi gën a yokk boo waxee da ngaa war a wax. boo waxul da ngaa war a wax kon moo du wax nga. ayca mi ngi noonu ñu lay jaajëfal Omar di jaajëfal sa invité je rappelle que ni nga ko waxee moom moo doon euh, directeur technique bu groupe Walfadjri moom El moo Modou Diouf ñu ngi koy remercier bu baax a baax.